pour quelqu'un qui aspire à être le président de la République du Sénégal loolu jaaduwul la ca toppit mooy njàmbat mi ci montant bu bu minable comme deux cent mille ci sa santé jaaduwul ci koo xam ne dafa bëgg yilif réew mi ndax bu tanewul ñi mu àndal est-ce que ñoom ñun bu ñu leen joxee suñu réew ñun ñoom du ñëw tibb li fi des. moom boo ànd da nga leen tane saa bu dëkk boo ànd ak ay nit. maanaam dangay def comme Idrissa Seck ah il faut nga yor say range sa doom nekk extérieur di snap ay 3 millions 4 millions tu vois là boo waxee ñu déglu la mais boo ñëwee tey yi noonu ñi ngay àndal problème mu boo ñëwee ci kees gi da nga koy da ngay da nga koy saxatoo lekk ko quoi moom xel xelam loolu la ko jox quoi tu vois. ma defoon ne la Thierno ñun ñun ce que nous aurait fait peur xam nga mooy lan mooy tey jii waa diaspora bi dajale seen xaalis. bàyyi nekk fii di jaay seen dajale seen ñaar dërëm ñetti dërëm dajale ko ba mu bëri ah parce tey ji tax ñu dajale mooy dañ leen gëmloo ne parti bi amul xaalis Pastef amul xaalis du parti boo xam ne tey ji ñëw di jox waa kii bi militants yi parce que loolu moom la gars yi tàmm ñu amuñu loolu li ñu am mooy idéologie ngeen ñëw partagé ko ak ñun tu vois donc gars yi bu ñuy cotiser c' est pas pour Sonko di mën a une vie vie vie vie yooyu quoi donc dañuy cotiser pour un idéal pour ñu atteindre l'objectif moo tax gars yi seen xaalis donc li di li doon tuddee militant yi mooy ñuy cotiser seen xaalis di gis Sonko def ay séance de massage yu deux cent mille di yor ay range Rover tu vois moo leen aar ñaan kii kat moom baa dundewul xaalis askan bi tu vois mais Sonko di wane man maa génn yam ñu on a les mêmes soucis loolu xaalis bi la c'est pour un projet ko loolu mooy différence bi Sonko ak Idrissa Seck sa mentor boobu noonu yaa ngi dégg donc question da ngay ànd ak nit ki rek da ko war a wan ne yow miy tuye ci affaire wan ko ay matériel non c'est pas ça li ci toppit mooy li mu wax ne xew na mu occulter ko waaye nag am li mu wax ba tax nit ñi jóg te dañoo nekk ci contexte mm-hmm. mooy contexte Covid ci la ñu ne donc état d'urgence Euh, état bi lijjanti na ba am na ci réew mi mooy on est en catastrophe sanitaire mais du ma wuy ji rek su ko waxoon toog këram comme ci yoon la ñu ne état bi nga xam ne moo war a doxal yoon te may ko mbalaanum kiiraay moomu jàpp naa ne manqué wu ñu bay dem di ko jëli. naan dafa am loi quoi ban dëkk moo am loi dëkk boo xam ne tey bu kaas dañu koy jàpp ak ay milliards de faux billets bàyyi ko mu ngi noonu dem anam fu mu ne booy bi ñaari billets deux mille il croupit prison dëkk boo xam ne dañ koy dañ koy taxal viol tëj xëyérim violé ngeen gracier ko di fay jabaram fay xaalisam du ko ay dundam tu parle de de de yoon dëkk boo xam ne tey jii dañuy ji nit six mille milliards mu dem ba amatul teg kaamil di waat école bi on on lu am traçabilité xaalis bi fii def lii fii def lii mu naan barke yàlla teg kaamil naan waa kaamil affaire noonu et tu ma parle de loi dem ba si yàgg ngeen ni toppee ñu ko dal Sonko ngeen ñëw tey jii créer ay viol yoo xam ne vraiment même le plus débile des Sénégalais xam ne li li li machination la et bu parle de ceddo mais faute bi mooy rassemblement dafa am këram le lendemain parce que dana jóg leen donc rassemblement boobu am il faut que police réagir il faut ñu ñëw pour tas mbooloo mi ndax kenn amul droit rassemblement loolu nag am na préjudice boo xam ne apport indi na ko ci dëkk bi bu matériel bu bari mooy Auchan yi ñu yàq en quelque sorte am na ñuy stigmatiser bien français yi ci réew mi ñu ko wuy ji woon muy frappe am na yeneen bien yu yàqu yoo xam ne ay particulier ñoo ko moom c'est assuré ñooñu dañuy dem ils vont se tourner vers leurs assurances assurance yi lan la ñuy def dañuy contre x kon yeneen dossier ñi ngi ñëwaat mm-hmm. yoo xam ne wax boobu moo ko indi léegi beneen bi nga ne Sonko nee na Sonko lu mu demul wuy ji du ma wuy ji de instru xama lan atteinte xama la sûreté nationale xama lan sécurité saa waay ku ndóobul nday sama am foo seen lu ñuul daw Idrissa kii Khalifa Sall civisme moo ko fi indi moo ko yóbbee kaso Karim Wade noonu parce que yéen gàtt sa gàtt sa ngeen xam répondant naa répondant naa lu tax Sonko di toog ngeen jël ko yóbbu ko fële Colobane teg fa defee rek bu ñëwee ngeen ne Adji Sarr absente xaw ma lan pour cause de lan maladie wala dara wala elle est atteinte psychologiquement jël Sonko di ko renvoyé ping pong ping pong ba élection ko def du ko mës a def yéen du ko mës a def. moo tax mu ne gars yi bu leen ko nangu sinon dañ may nguufaan comme moom mën a jaw wala ay si anta sacrifice sama life wala ay bu leen nay jóg du nguufaan yóbbu ah ku ko bëgg gis doo gis ñaan son avocat gis na ko mais léegi laa bon mi nag di pën pën non non su ma ko defee dara loo xam ne tey ji moo jar may may may dem kaso maa yóbbu sama bopp du ma ci